ma ki tax may sant man di biral su ma salaatu wa taslim bila adadin ala sabi il wara akaadima ki mu fal jox leen ma noppi ah. jox leen ma noppi jox leen ma noppi daay wax man lu baax sarafet jàmbaar ji buy jëfitam waykat yi sañ di jotal Cheikh Abdoulaye Lahat Cheikh Abdoulaye Lahat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 yan baa ngi teel na woyof yaa aw ci jéego yoon say wax la yàlla saxal woyof ca ko waaye daal kuy wax na wax la mu xam biir baa di yàlla gabang doo leen ti jéem a jubal jox naan saa ruu gi ak saa xol bi ak lu ma jur saa yéene ak lu ma jëf loo wax ma def ko waxal bindee fi maase na booloo bindee fi maase na booloo xam ni yaa ci fi woon nuy satra boraate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral yal na la yàlla musal ci ndog nga jëf ba matal digal nga say mag te boo say doom ñu topp ci yow Cheikh Bamba jiite la yaa sa rakk nanga dimbal alhamdulilah am dan cant war na ma ndax cant yoroon yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yoroon sampaan nga kër yi fi woon mbooleem lu Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay mbooleem lu Cheikh Bamba naa loon lépp di nga ko matal yaay xubu yaay xawsu yaa najul xadimul asamta wara bahri lan waa noo ngi sakku ndimbal buur yàlla noonu nanu maan nan sax balaa ya ku dem jolof xam ni njëbel li wet doxalal yal na la yàlla la yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba ba daj ami xob nguub sarakii boot say doom te jox nu ndigal yal na la yàlla saxal tuuba ba daj ami xob nguub sarakii boot say doom te jox nu ndigal